dafa doon ndaje moo xam ni ONFP moom moo ko sakk woon ñoom dañoo nekk ci pàcc boo xam ni pàcc tàggat ay ndaw la bu ñu nee ndaw nag dañu ne ndaw yi wante ak jigéen ñi nañ ko il faut mu leer bon nag euh, ñu sakk woon ñu daje ngir ñun ñi nga xam ni ñun ñoo nekk ci département Diourbel ñu mën leen wax ni lii moom mooy li nga xam ni moom la ndaw yi ak jigéen ñi soxla ci ñu tàggat leen ngir tàggat boobu buñ leen ci tàggatee ba pare ñu mën leen jox ay këyit yuy wane ni tàggat nañ leen wante këyit yoo tax yoo xam ne day tax ba seen liggéey day gën a ñoŋ ci lañ leen di gën a nawe ci lañ leen di gën a joxe seen i àq te ci loolu la leen di it ñeneen ñi di jàppee ni ñoom ñi ngay lañuy liggéey lu ñu war a fulal la ndaje boobu moom la ñu def tey. ñu tànn ay métiers yoo xam ni ci biir département bi xam nañu ni lu lu ñu lu ñu soxal la fi lu soxal ndaw yi la muy fukki métier daanaka tànn nañ ko di ñaan ñoom ñaa en effet bu ñu delloo ci seen i bërëb a ci seen i waxtaan ñu mën a fexe ba d'accord ci ni lii ci fukki métiers yi war naa mën a am formation ci biir ci biir Diourbel bu ko amulee it bëgg nañu li nga xam ni moom mooy yi nga xam ñooy prioritaire a ah, ñu fexe ba loolu formation yu mën cee am lii moom mooy li nga xam ni moo ñu dajale woon liste boobu tànn nañ ko ñi nekkoon ci ndaje yi ci ndaje mi ñëpp ñoo ci ànd d'accord ñoom jël nañu liste bi bu ñu delloo ci seen i bërëb dinañu waxtaanee loolu boole ak leneen li nga xam ne dinañ ko taataan ci yeneen région xool li nga xam ne dinañ ko tànn ngir Jurbel bu boobaa ñu xam ko mënaguñu xam li mu ndaw ji ndaxte fi mu nekk nii ñun dañoo def rek li ñuy def rek moom mooy wane suñu bëgg-bëgg ci tàggat loo xam ne war nañ ci tàggat ak yu ndaw ñoom bu ñu demee ba dellu ba liggéey ba nga xam ne ñoom wàcc nañu seen liste nii ah lii de yaakaar na ne ci Jurbel lii moom mooy li ñu nar a li nar a jël ci ay formation maanaam ci li ñu nar a tàggat bu boobaa ñoom dinañu yónnee loolu ñun ñu xam ko ñu ne ñu xool nag fii yan ndaw loolu loolu soxal waaw boobaa. ndaw yi dinañ ko yëg dinañ ñuy xamal ni lii moom mooy formation yi fi mën a am ku mu soxal di nga ñëw bu joxe déposé say këyit. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla euh, yàlla nañ si bu baax di remercier au euh, préfet ak équipe bi mu àndal ak vraiment tous les acteurs participants si atelier bi ndax lañ sa doon xaar gis nañ ko dañ doon xaar indi. ay information sur ay potentialité yoo xam ne dañ ko gis ci benn kayit bu ñuy wax plan de développement mais acteurs yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci euh, plan boobu ñoom ñoo ñu wax ne tey lii ak lii ak lii mooy métier yi nga xam ne moom la gën a soxal nit jigéen ñi ak góor ñi métiers yooyu nag tey la ñuy tënk suñu demee nag def si ay référentiel de titre titre bi nag soo ko xoolee benn genre euh, diplôme la boo xam ne ku ko yor rek foo ko wane dinañ xam ne mën na lii mën na lii mën na liggéey bii te kii ku ko jël si catégorie bii nga koy classé si convention collective tel nga koy jëlee ba nga xam ne nit ki soo ko jëlee rek moom jaratul sax négociation parce que parchemin bi mu lay wan moo lay wan ne kii lii la mën tong fii nga ko war a euh, joxe parchemin bi tam mën na permettre tamit yow sa bopp nga wutal sa bopp liggéey li muy li mu yokk par rapport ak attestation yi c'est que yow léegi bés booy liggéey dinga xam ne kat liggéeyu ma ngir dama ko xamantu nii rek dama liggéey ndax dama si am xam-xam bu wér muy titre bii ma yor donc su may facturer dinaa xam ne kat ah xam-xam nag dafa am njëg niroowul ak ki nga xam ne day liggéey rek soo paree nga nekk am jël njëgu goro déedéet su ñëwee da lay wan ne lii laa yor di ma lay liggéey nii yow mii si boppam xam nga ne liggéey bu wóor la parce que lii moo koy attesté donc su ma la facturer war nga maa fay loolu si loolu nag la ñu bëgg vraiment egsi ba nga xam ne titres yi dina gën a wasaaroo parce que li si neex mooy du formation yu yàgg mbëkk bi eh, soo ko seetloo ba seetlu ñu fay nekk di fa dem soo ko xoolee amuñu qualification bi permettre ñu mën a dem liggéey ndax suñu amoon qualification defe naa nañ waa dinañ jaar si waa normal ñu ne xale yi nag soo leen buggee téye il faut nga jox leen qualification qualification boobu tam il faut mu méngook ñoom li ñu bëgg ak li ñu mën loolu nag la tiitre bi di eh, jëriñ ndax soo ko ko joxee rek fu mu dem di wut liggéey dinañ xam ne kii mën na liggéey moom si boppam suy liggéeyal boppam di di si tedd aussi dina xam ne kat lii may liggéey am na njëriñ parce que xam-xam a ko lal donc loolu la ñun daal am nañ xalaat ne am nañ pàcc bu rëy bu ñu war a jouer si affaire mbëkk bi li tax sax mu gën ñoo neex mooy ministère bi léegi dafa tudd ministère de l' emploi de la formation professionnelle et de l' insertion insertion moom mooy vraiment nit ki soo ko tàggatee ba pare nga gunge ko jàppale ko ba mu am fu mu téye